بسم الإله ينمو الهائي بلا مناهي ولا وإني أعيذ بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من مسار الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم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 إلى ولي المؤمنين والشكور كن يا ولي يا خدير يا نسير للمؤمنين إنك الهادي البصير أذبت فورا لسوانا كل من لسيكون مؤمنا يا ذا الزمن كتبت فورا لسوانا كل من لسيكون مسلما يا ذا الزمن كتبت فورا لسوانا كل من لسيكون محسنا يا ذا الزمن نفعتنا بأفضل الإيمان فلتنفع الجميع بالأمان حفظتنا به وبالإسلام فلتفصل الكل عن الملام قدمت سيد البرايا أحمدا والأنبياء ورسل يا من حمدا xodi salaata wa salaama abada lahum kama sayta man lam yabuda ila nabi xodi salaata wa salaam wal anbiya wa rusul munsilal kalam ala nabi muhammadin wal ali salli wa sallim wa tajib suali wa kawni al abdal qadima katabatun shakara li muyassir asiri maqdara li bila masiri يسر للأكرم وتيسيرا يفوق لي وإبلاه جاري رفيق سبحان ربي الكريم الأكرم من قادني إليه بتكرمي شغل والأمر مع شكوري ولم يزل برافع شكوري رفعني رافع بالكتاب بلا حساب وبلا عتاب لوات قرية بلا قران وسامني بالهند والجيران يزول عن كل جنجاتي مغن يدي بهذا نادي إذا تلوت آية فر لئيم لغير ذاتي وجزود والمعين لم ينحني مكر ولا إبليس أو فقر أو قدر أو تفليس أيش مني العين والقلاب ربي بمن كتابتي تنمي علا كتابتي فاقت وقدر بها وكل خير وتي وقدر خيا ودى كتابتي في سن الله لغير نهوي كل جان لاي متى لي الأكرم تيسيرا يفاق قني وإبلا وجاري رفيق من ذنني غير قديم المصطفى فإنني أخدمها بما صفى أخدمها إلى دخول الجنة دار القرار والمنى والمنى من ظن أنه يكون أبدا مضيئا بما كخدمتي بدا فقد ودلال والإجلال ينقاد لي لنوبي الألال كرما هديتي قتل بي كرما يا خير من أخطأ ومن تكرم فبالرسول الله بالحروف والجدار بالمعروف topp ñaari waajur nag la ca jiitu bu fekkee ñi ngi dund mooy nga leen di topp ci loo xam ne du ak mooy yàlla nga leen di topp ci loo xam ne du ak yàlla topp sa ñaari waajur mooy nga di leen déglu rek yow na nga nekk waxtu nekk taw tawhu amrihima suñ ne laa defal nga def buñ ne laa bàyyil nga bàyyi buñ ne laa waxal nga wax buñ ne laa noppil nga noppi buñ ne laa indil nga joxe buñ ne laa téyal nga téy topp sa ñaari waajur baat bi firi na ko topp topp ci wax topp ci jëf topp ci pas-pas li feeg li nga leen di toppe lépp mi ngi dëppoog lu neex yàlla parce que nag ay waajur loo leen yërëm-yërëm luñ baax a baax du tax nga leen di topp ci loo xam ne nii dafa naqari suñ borom laa taata lil maxluuqi fi maxsiyatil xaaliqi maanaam mbindeef kenn du ko topp ci kaw loo xam ne dafa naqari suñ borom déedéet da ngay seet li nga leen di toppee est-ce que dëppoo na ak li neex yàlla wala déet su fekkee li neex yàlla rek la dëppoon nga topp leen ca loola moom ca la ngërëmul yàlla gaawe lool soo yéree nag ba xam ne sa ñaari waajur ñoom lii ñu bëgg nga topp leen ci du lu neex yàlla nga naxanteek ñoom ci kaw ay teggin waxuma nag nga jekki-jekki rek xëppati ci digg bi ne ko yow góor gi xam nga ne lii du ma ko def lii neexut yàlla yow xanaa dangaa dof wala yow xanaa jëngoo loolu bari na lool ñu koy wax seen ñaari wajur sa wajur wax ba pare nga ne ko yow père xanaa jëngoo loolu ëpp naa wax day dellu ci biir baat bu gàtt boobu nekkoon ci biir aaya ji wala taqul lahuma uf wala taqul lahuma uf uf uf sax baatu uf boroom xam-xam yi firi baat dem nañ ba ne àgg na ci sa ñaari wajur wax ba pare nga sànni say loxo don di waxoo benn baat di fu waaye yow geste bi nga def geste bi moo rafetul waajur wax ba pare rek nga daal di sànni loxo loolu day dugg ci wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma bu leen gëdd bu leen gëdd te bu leen menacé maanaam bul waxanteeg sa ñaari waaju mbaa ngay jëflanteeg ñoom noo xam ne dañ ca yëge ne dañ ca yëge ñoom ragal nañ la te bokk yi nag bu ñu waxantee dëgg te waxante dëgg rek te dëgg moom yàlla rek a ko moom jamono jii nuy dund bari na fi lool ay waajur yoo xam dañoo ragal seeni doom dañ leen ma nag ragal gi ko waral waaye fi ne nii am na ay waajur yoo xam ne ñoom ils sont dañoo tiit nga xam ne tey buñ bëgg bu fekkonte ne sax seen doom dafa nekk ci ab safaan wala lu mu wërta nekk nga ñëw ne ko waxal ak moom am na keneen kum lay taxawil ne la ah xanaa nga dem ca diw mu wax ak moom waaye man day ñemewu ma koo woo di wax ak moom mais lu tax doom moo mënta àgg fenn ci kawe ak daraja ak maqaama ak wàccuwaay ba way juram sañu koo woo digal ko lu baax tere ko ab sataan loolu kenn du ko weesu dafa bokk ci mbir yi nga xam ne di ko dépassé mooy waxtu wu nekk danga war di rot ci tànki sa ñaari waajur ñu yëg ne ñoo la féete kaw ñu yëg ne ñoo la féete kaw Abdoulaye ibnu Subayr nekkoon na waali Makka bokk ci nit ñi gën a yàlla ci adduna bi teewut ba ni ba ni yaayam ba ni xëy faatu suba gu musaana xëy dana ñëw buub buntu néeg yaayam te boobu moom moo nekk président jiite jullit ñi am doole am force waaye teewut dafa yëg ne am na keneen koo xam ne moo ko supérieur ci kaw dogalu suñu borom te kooku maanaam mooy waajuram bokk yi bokk na ci askaal yi nga xam ne manees na caa toppe ñaari waajur mooy ngay ihsaan di jëme ci ñoom sa ñaari waajur del def rek lu rafet bi ci ñoom defin woo xam ne nag yàlla rek a tax ñoom buñ aaje woo ab dund nga indi leen ñu dund buñ aajowoo yónneen nga demal leen buñ aajowoo wéttal nga ñëw toog di waxtaan ak ñoom buñ aajowoo faj nga faj leen bi maanaa lépp loo xam ne baat bi dana ko yóbbaale ci am maanaa rek muy ihsaan nga di ko defal sa ay wayjur loolu bokk na ci askaal yi nga xam ne manes na caa toppe wayjur naka noonu bi nga xam ne moom laa jiitaloon te war koo mujje te mooy di leen di suufe di suufeel say wayjur boo ko yi dafa am loo xam ne dafa neex dafa am loo xam ne dafa neex xam nga lu neex mooy nit koo xam ne bu génnee ci mbedd mi ñëpp dañ koy summel mbaxana di ko summel daal di ko raamal kooku moom kenn nattabliwut ne kilifa la moom ñëpp xam nañ ni kii kili kilifaa ngi waaye nag moom ci boppam bu demee ba ci way juram waajuram waajuram toog ci lal bi mu toogal ko ci suuf loolu day neex ci waajuram parce que day yëg ne kii de lii muy def man rek maa ko mën waaye bu génnee ci biti li mu may defal moom ñeneen a ko koy defal kon ay waajur ak di leen topp loolu bokk yi bokk na ci xeeti e, jëf yi nga xam ne ma manes na caa topp waajur naka noonu bañ a yëkkati sa kàddu booy wax ak ñoom jëlale naa nag di leen gëdd waaye sa waajur ngay wax ak moom képp donte téléphone la bul wax ca kaw ndax loolu day tàbbi ci wax fit law maa janaa azul sa ñaari waajur dañ leen war a suufeel ci sa kàddu suufeel leen ci sa daraja sa daraja bu ko sa ñaari waajur xam nit nit warta am daraja am daraja ba ñaari waajuram yëg ne diw mii kilifa la déedéet ñoom waxtu wu nekk ana luñ koy jàppe ab liir ab liir yow waxtu wu nekk rek dee leen bàyyee sa bopp ñu jàppe la perantal gone gu ndaw goo xam ne mën a dara ndax aw waajur nit ki bu demoon ba nekk président de la république sax ay bu ja bu dajeeg waajuram waajuram moom du xool daraja ji ko yàlla jox tey maanaam place bii mu nekk tey jur wi xoolu ko ana lu muy xool ba mu doonee perantal mu di ko boot mu di ko waccu ak di ko gàll ak di ko def la neen yooya lay xalaat waaye xalaatu tey dara ju juri ji nga xam ne moom la adduna daje jox ko ko loolu ay titre la rek yoo xam ne eggut ci àqi waajur kon bokk na ci mbir yi nga xam ne bokk yi manes na ca euh, topp waajur mooy ngay wàcce sa kàddu ak sa daraja ci ñoom waaye bokk na ca ba tey di leen xerawlu déglu bokk yi am solo ngoo mooy bàyyi xel ak déglu li nga xam ne moom la sa ñaari waajur di wax loolu boo ko xoolee ba xool ko mooy maanaam sa ñaari waajur da nga leen war a jox temps biñ soxla ci yow maxal asaf nag bokk yi tey jii lu lu baree bari ci nun lu baree baree baree baree bari ci nun génération bii loolu dañ seeni waajur perte nañ ko ci ñoom nit ki mën naa tabax kër fa tabaarakallaahu ba étage ko lépp lu aajowoo ci biir ci ay climatiseur ak ay meuble ak ay lal yu taaroog ay armoire lépp mu dugal ci biir jël waajuram teg ca kaw te teewul ba léegi waajuram am na lu mu ñàkk ci moom lim ñàkk ci moom mooy temps bi temps bi mu waroon a toog di waxtaan ak moom moom la amul ñu baree bari ci ñun boo leen waxee wenn lay lañ am te mooy liggéey bi ah non non liggéey bi moom ma obligé damay teel xëy di guddee wàcc nangam nangam au ma temps pour toog ak paa bi au ma temps pour toog ak mère bi déedéet bokk yi dafa bokk ci àq yi nga xam ne doom ju nekk yoral na ko waajuram mooy di toog fi fi moom di waxtaan ak moom loolu àq la du ceegee nag yow yaay xool ni la neexee rek nga ciy doxee noonu àq la moo ko moom léeg-léeg da ngaa war a annuler ay rendez-vous annuler ay programme dagg ay yitte ñëw toog lal basang toog sa wetu yaay di waxtaan ak moom toog sa wetu papa di waxtaan ak moom un moyen muy wéttilikoo muy wéttilikoo say wax loolu dafa bokk ci acte yi nga xam ne nit ki mën na koo def pour euh, toppe ko ñaari way juróom waaye bokk ne ci ba tey mooy sa xar kanam nga feccil ko sa ñaari waajur ba ñeme la ba ñeme la ba man laa wax lépp luñ la war a wax te bañ a doon rek gayndeeg sibi goo xam ne boo xasee rentré sa ñaari waajur tëri nañ parce que ñi mu maanaam di waxoo dara defoo dara waaye sa sa comportement ak ni nga ñànge rek loolu lañ ñemewul loolu bokk yi lu mat di wattandiku la mooy nit ki waxtu wu nekk dafa war di lewetal kanamam di ko fecci di neex deret ci kanam ay waajuram ba ñeme ko ba man koo wax lépp loo xam ne seen soxla la naka noonu respecté sa ñaari rawatina ci jataay respecté sa ñaari rawatina boo toogee ñoom ci benn jataay bokk yi bari na ñoo xam ne buñ toogoon ak seeni waajur ci benn jataay maanaam doo sentir dara bal ñoom sax bu fekkee ñoo jëkk ca jataay ba seeni waajur jekki-jekki dikk doo sentir dara te nit ki jataay bi muy toog war na cee meloo melowoo melokaan woo xam ne booy jërëm dugg si woon dana xam ne jataay bi sensé na yow sa bopp da nga soppi sa comportement soppi saw doxalin mel melokaan woo xam ne nii dana tax eh, say wa sa ñaari waajur gën a am xel mu dal gën a gën a bokk yi loolu lu néew la ci li nga xam ne tënkoon nañ ko ci anam yi nga xam ne warees na cee toppe ñaari wayjur mu des nag loo xam ne xëy na dañ koy leb wala ñu tënk ko ba baneen yoon baa ñu bàyyee ko borom xam-xam yi ñu faram-fàcce ko te mooy xaajum ñaareel bi nga xam ne moo moo jëm ci dogoo ak ñaari wayjur wala iyaasu billaahi taala mbir moom yi nga xam ne sariya tere na ko lislaam tere ko yonente bi alayhi salaatu wasalaam tëg koo ci sëñ Tuubaa tere ko nit ñu baax ñëpp tere ko noo ngi ñaan daal nun ñi fi teew ñëpp ak ñi amoon yéene teew te um, yàlla dogal mënuñoo teew ñun ñëpp yàlla nu yàlla jubal te teg nu ci siraatal mustaqim ba fa nga xam ne fa la nu sunuy wayjur di jorte nu egg foofa mbaa nu egg fu ko kawe. kon noo ngi nuyu Cheikh Abdou Khadim Ndiaye mii nga xam ne moo fi nekkal sëñ Banji loo xam ne nag kenn lañ koy defal lenn lañ ko defale fenn lañ ko fay defalee wax ji naa bari bañ a bari ndax dama leen di wax ne rafetal mënta weesu lu mbokk yamaay yamaay nga boole ko tala nga ne kon man ku ma boole ku ne xame naa ca na nga fonke ak bokk xame naa ca na nga ko jàppe ndax xam naa sama bopp kenn boole ma ci lenn ngir lenn lu ngir yàlla ak bokk loolu lu ma xam saa bopp la kon xam naa ne fii li ñu fiy def yàlla aku bokk ak say xol xadim rek lañ koy defal kon noo ngi nuyu ñëpp ci turu ñi nga xam ne ñoo may wax loolu ci turu bokk gi di leen jot li seenu cant ci ñoom di gërëm bokk yëpp di ñaanal bokk yëpp di xam ne bokk yëpp ñi nga xam ne fekk si nañ leen ngir bokk fekk si leen ngir sëñ bi yëg nañ ko jàpp nañ ko xam nañ ko nangul nañ ko mboolem ko fi ñëw ngir seen bis bii kon loolu dama leen di wax ne nit noo xam ne bés loo ko defee mu neex la kan ko def jërul ngay laaj nga di ko laaj neex na laam déet mën nga koo xamee ci sa bopp mi nga xam ne liñ la liñ la def neex na la ki nga ko defal jërul nga di ko laaj neex na comme déet ko neex na ko kon xam waa kër sañ benn ji gépp li ko dalee si Abdou Khadir Ndiaye mii toog ba ci génn di tuuti ñu daan ko dawal di nangam xam nañ ne yëg nañ yëg ngeen seen bis bii jàpp ngeen seen bis bii fonk ngeen seen bis bii te yàlla ak Sëriñ Tuubaa nun ñëpp dem war nañ leen a amee nag cant ndax nit mën nga koo yéene mu lekk mën nga ko yéene mu naan mën nga ko yéene mu solu waaye yooyu yëpp taxut a jàpp lii tax a jóg jag mooy dund ci baax nekk ca te yàlla tax ba faatu fekkale ca te mooy lii ku ne xam na ne ku ñuy warmaal ku ne Seexul Xadim rek moo tax moom képp mooy ki nga xam ne ni ko sëñ laxat waxe woon ba muy ñaan kenn taxut ci gannaaw naan amiin kenn ku nekk dafa tibb jox la ci biir waaye ba Seex Umi mii li mu yor mu wër ko ne sëñ Tuubaa ko jox keneen ku ne itam loo bari la bari la na nga xam ne sa bari la ko gën na nga koy ëppale ëppale du sëg njàmbaar sëñ Tuubaa moo la ko jox loolu danaa leen di wax ne kenn ku ne mën ngaa xam li la sëriñ bi defal ci ñi nga bokkal te bokk leen sëriñ bi ku ñu fiy màggal ku ne li ko dalee ci moom jëm gannaaw ay bokk kese la waaye kenn tudd leen mbaa bu ñu leen tuddee ñu leen xam doo nga leen di tudd di leen ñaanal ngir bokk waaye koo xam ne nii dem nga sëñ xam yi mu nangu la ba nga dellu si des da nga nga ka nga topp ka ka la meññ sax du ko gën a rafet na aw loolu nag li ko def mooy Seexul Xadiim ci boppam moo defal boromam lu ko kenn mënta defal ak roo bu doon ak njëg jaamu yàlla ay njëgga ndax moom la Seexul Xadiim wax moo wax ne maa xal moom la yàlla wax moom la moo wax ne maa xal dina wala sa ilaal yee kon mel na ni ak roo jaamu njëg googu nag sëñ Tuubaa dong moo ko jënd ndax moo ci def loo xam ne kenn mënu ko jaamu yàlla gënal la sa ruu gënal say doom gënal la sam dëkk gënal la sam réew gënal la alal ak nekk ci kaw suuf yàlla gënal la ko gënal sa bakkan moom doo nga ko def wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu loo ngi jéglu ñëpp di jég toog ni jàkkaarloo ñoom sëñ Moustapha soog ak ay rakam di ci teg nag ki nga xam ne kii mu woote bis bi di borom bis bi di sëñ Abdou Khadir Ndiaye te gën koo xam ci Baye Jili jaay ñoo ngi koy nuyu ak mboolem njaboot gi yëpp ñaan mu yàgg fi lool ca wér ba li mu yéene liggéeyal wajur mu baax ba seex ma bañ yi mu def ci li ko njot ak mboolem ànd ko njaboot ñu ndong yëpp kaddu yi nag ni ko sëñ naa waxee rek Baye Cheikh Niass Mbacke moo waroon jël kàddu gi ci turu dong yi ndax moo ci mag bu nee Cheikh Niass rek ñu bari duñ xam waaye mën nañu sëñ Bañ ji Niass wala sëñ Bañ ji Jaay moom moo sama baay man mii yor kaddu gi ñoo magoon ci turu Bañ ji kon ci seen kàddu lañuy ñu euh, euh, wax ji ñuy wax sama baay rek nekkutut waaye bàyyi seex mu nekk day wut sama baay foofa waaye rek sama baay mu ci jotaay bi muy bàyyi sarax ñu ko wax Serigne Kare dëkk ca Mbàkke Motom kon ñaar ñoo ñu lay wax ci seen kàddu ak mboolem dong yi nga xam ne ñoo ay ci kër gi yëpp mën nañ ne dong yi aju ci kër gi ñi ci sañ soññ ñu mel ni man ñu tuddi leen gannaaw géer Seex man Faare daan tudd ñooñu gannaaw géer la ko waral danaa ci tuuti ndax ñun suñ maam nga xam ne mooy maam yi sama maam ki jur sama baay sëñ Tuubaa la àndoon ñu dem ba sëriñ bi jógee ca tukkeem bu yàgg ba ñëw béréb bi xaw xat ñu ko wax Ali Fama Kare mu ne ko yéen de Ali da ngeen doon askan woo xam ne da ngeen maanaam nekk ganaaw géer daal ni ma ko mën a waxee da ngeen bëgg ku leen ràññee saa su ne ci barab day xat dama leen di bëgg a booleeg sëñ Banji keroog yoomal xiyam lu ma am Banji na ci am foofa la suñu maam àndee ak ba tey tey taalibe yi gannaaw giir ngeen gën a gis ci mbooloo mi maanaam taalibe yi tëgg wala euh, wude wala maabo wala leneen leneen mooy gannaaw giir rek kon ci turu taalibe yooyu la wax loolu moo ñu boole kër sëñ bañ keneen koo fi dégg ci gën a kër buntu kër sëñ Tuubaa itam ak rafetal ak sëñ Tuubaa boole ga mbooleem suñu maam ak sëñ bañ moo waral maanaam sëñ sëñ bañ suñu maam seey sëñ bañ yi seey ci sëñ ba fii ne nii maanaam tey kër gi yaatu na lool kon ñoo ngi yëkkati kàddu ci turu Baye Cheikh moomu ak Baye Sarax di soññ suñu bopp di soññ suñu bokk taalibe yi nga xam ne moom lañ bokkal kër ñii di samay rak ñii di samay doom ñii di samay mag kon nañ takku ñu ta xam ne liggéey bi jotaay bi rek wane na ci tey yi aw yoon maama bañ de moom làqoo ak léegi léegi tey mu jege xam naa ay at yu bari waaye saa su ne at bu jot ay nangami nit danañ fi daj yoo xam ne bi fas dëkk bu fasandikoo ngir jëmam daal liggéey nag ba am ngërëm kon ñun dong yi nga ne bi yàlla dogal na ñun tam ñu dongee Serigne Touba di ay dongam war nañoo mën euh, xool ci ab doxinam takkaat suñu ndigg fas naa liggéey ba ëllëg buñ amul li mu am itam daanul mën a jege foofee ku liggéey nag da añ Serigne Touba moom ku liggéey añ añ bi tey ji mooy lii na ngeen ni daaw jàpp naa ne na ngeen ren moo fuuf mbooloo moo ko gën a jàkk fuuf kon liggéeyam sëriñ bi noonu la saa su ne soo ci nekkee bañ a gees rek tayam ñu ne di gàccee démbam noonu la sëriñ dem kon maa ngi soññ sama bopp di soññ sama mbokki taalibe yi kër gi yëpp di bokk soñ sa mbokk taal yi bokk sëñ Tuubaa yëpp kon ñu nañu góorgóorlu ci xam ne sëñ bi rek moo fi nekk liggéey sëñ bi rek moo fi nekk waaye de na ma ko daan waxee rek mun ñoo ñàkk a wax mag ñu baax yi nga xam ne bii nii ñoo fi jaaroon nga xam ne ñoo taxawoon bis bii ke ca njëkk di taaw Cheikh Mabañ yi muy bàyyi Mansour Ndiaye ñoo ngi koy ziar bu baax di ñaan yàlla yokk leeram ak waa këram yëpp ke ca tegee di bàyyi mun Ndiaye ñoo ngi koy ñaanal bu baax sama borom yokk leeram di waa këram yëpp ka ca tege di bàyyi Mouhamadou Racine Ndiaye noo koy ñaana sàmm yokk leen ci siyaare maanaam njabootam yëpp ka ca tege di bàyyi Modou Mbacke Ndiaye noo koy ñaanal sàmm yokk leeram ci siyaare njabootam gépp ka ca tege di bàyyi Thierno Ndiaye noon koy siyaare di ñaan yàlla yokk leeram ci siyaare njabootam yëpp ka ca tege di bàyyi Idali Ndiaye noo koy ñaanal di siyaare njabootam yëpp ka ca tege di bàyyi Mourtala Ndiaye ba nga xam ne moom mën nañ ko tudde jàmbaari xel koom noo koy siyaare di ñaan yàlla yokk leeram yëpp am na nag ay sët yoo xam ne bii ku ci mel ni sëriñ am di ma magoon ka ca teg di sëriñ usmaan Ndiaye ka ca tegaat di sëñ As Maam Ndiaye Rachid ñooñu ñoo ngi leen di ñaanal sunu borom yokk seen leer ca njaboot gi ci bàyyi sama borom teg seen loxo bu baax a baax a baax baax ñooñu de liggéey bii nu tàmbali nii ñoo ko sosoon ànd ko seen bay jóge ñu xam ci seen positif ak seen i njàmbaar rawaati nag As Maam Ndiaye mi nga xam ne bii nii noonu ma waxee ci bàyyi mu taxaa rek mën nañu ko tudde jàmbaari kër sëñ Banji jàmbaari xel ko jàmbaar yëpp mun ñoo wax ke du ñu xaababal ci aas aas dafa baaxoon bëggoon suñ kër suñ bàyyi bëggoon lu bokk suñ bàyyi man dafa ma daan wax léegi yéen du ngeen suñu taal bi ay doomu ngeen ay doomu bàyyi noonu lañu jàppoon noonu laa dox ñoom kon bis bii lépp lu ci am aw yiw bu ko ci kenn ëppale yàlla na ko ci sama borom dolli lu kawe njottam moo ñam fa fekk ñëpp ak ña fekk yëpp ak sëñ Tuubaa jàngkatu alxuraan yi ñu xam ne ñooñu de ñoom lim boobu ñu wax buñ ci ak si wóotoon itam du sant leen te jàpp ne lim bañ am lu mu gàtt gàtt bu dee alxuraan rek dana mën a saytu mboolem li nga bëgg kon jàpp naa ne mboolem ki koy defal wala mbooleem ñi ñu koy defal ak ñi leen koy defal ñëpp loolu ñu jàng ci alxuraan mën na leen a dimbale tey ak ëllëg yàlla na ko sa borom def mën na ko sant nañ leen bu baax gërëm nañ leen gannaaw loolu itam nu xamal sëñ bi nga xam ne moonu jiitaloon ci kanam mbooloo mi dinu san dinu liggéey loo liggéey bii mu xam ne liggéey bi de tabaarakallah bokk yi ak taalibe yi dëkkandoo yi ñoom ñëpp ànd nañ ko ak nun ba lépp mel nu kawee suñu njort noonu ko koy seereel te di ko xamal ne moom moo mi nga xam ne moo amee cant ki tey na xam ne nun ñi jiitaloon ci ci kanam ñooñi sant nañ ñooñu lool ndax jàpp nañ ba lim lu ci lim lim la liggéeyloo deme ne nu kawee suñu te bokk yi dong la ak taalibe yi dong ak dëkkandoo yi kepp kon nag ñoom it ñoom itam nañ xam ne ñoom ñëpp noo ngi leen di sant bu fekkoon dañ koo man jëmm ju nekk dañu taxaw fa moom ne ko noo ngi lay sant li ci li ciy dolliku itam ci gàttal mooy daayira yii nga xam ne bi ci jiitu mooy daayira soxna njaxat njaay moom itam moo ña topp ci moom ñëpp ñu xam ne soxna njaxat njaay mi ne woon seen kanam ñëw na ak seenub liggéey di leen jiitu di leen sant nag ndax nee na ñoom ñoo ñooñu de sonaluñ ko ci lenn ci liggéey boobu yi da ca toppaat di soxna Fatiga Laay moom itam noon yi ko soxna Njaxat waxe la waxe ñëw na ak seenub liggéey sant nan bu baax a baax moom itam sant na ñam ko àndal lool ndax nee na kenn sonalu ko ci laaj kenn ku nekk yaa def sa yitte yi bopp ak sa jom yu bopp ak sa pasté bu bopp joxeel ko sa bopp kon sant na leen ci bu baax nee na kaja teg di soxna Fati Siise moom itam kasaalika moom itam nee na ñam ko séqal noonu yi lañu demee sant na leen bu baax waaye ñun ñii nga xam ne ci noonu lañ ko na jaar sant nañ leen ki nga xam yi nga xam ne moo ko ñeenteel nag te xam ne buñ dee lim bokk yi di lim dëkkandoo yi di lim daayira yi ñoom lañu mujjee mooy taalibe yi ñoom dafa def ne buñ leen jiitaloon dañ du tudd keneen ndax leen war a wax ci ñoom buñ ko jéemoon a wax ci ñoom bala na noppi taa bi jeex nu xamal sëñ ji nga xam ne tey moo fii sëriñ bañ yi ne ñoo ñi nga xam ne de moom li waral borom bis bi am bis bi moo leen borom moo leen moo leen boo rek moo leen booleeg borom bis bi muy ngërëmul sëriñ tubaa képp bis bii dara waralu ko muy ngërëmul sëriñ tubaa képp ci taalibeem boobu képp ñoom ñoom ñi tam dara boolewu leen ak borom bis bii lu may looli looli ngërëm looli képp kon nag ñu xam ne sant nañ leen lool ndax seen doole lañ boole ak seen xalaat ak seen xel ak seen alal def ko ci bis bi te dégluwuñ ci kenn sédduñu ci kenn lenn fas yéene lépp ñu defal ko seen bopp nga xam ne ñoom dañoo jàpp ne leneen lu ci waay def ñoom nga ko dimbalee kon nag ñooñu moom mënunoo mënunoo weesu seeral leen seeral la seen pëstéef ak seenu doxin ci liggéey bii ak budul bi yépp nag waaye ñoom itam danaa leen tënkal seenu liggéey ci ñu xam ne nag loolu yi ñu nekk day kii ñu nekkal ba mu am bis bii dara mayu ko lii lu may ngërëm ngërëmul ngërëmul kam to sëriñam ba kepp sëriñam ba itam dara booliwu ko woon lu may topp ndigalam fas yéene du ko dégg sin tere ñoom it noom lañ toppee seen sëriñ bi nañoo wax jàpp mën na war rafet njort ndax sëriñam boobu yi ñu sëriñ boobu ñu seen sëriñ boobu ñu topp te dara taxu ñu topp ko lu may ngërëmul sëriñ Tuubaa sëriñ Tuubaa moo ko gërëm ba noppi wax ko ne ko koo gërëmati gërëm naa bul ñëwati ci man ne ma gërëm naa kenn koo gërëmati rek xamal ne gërëm naa ko kon ñoom bu ñu ci moom ngërëm buñ ko amee rek nañ jàpp ne am nañ ngërëmul sëriñam boobee kon loolu moom danaa ko gàttal ci ñoom mu des itam sunu bokk yee nga xam ne ñoo dëkke ca ndindi te sëriñ Mourtala mii di seen jëwriñ ñoom itam dañuy def lépp loo xam ne lii dégg nañ lu ca ñu jàpp ca jàppin woo xam ne wii day mel ni kër géey seen kër xàmmeewuñ amu ci kenn koo xam ne kii xàmmee nga ko ak ka nga ne aslamtu nafsi mbooleem lu ñuy def ba ba ba ba ni dem ca àll boobee ñu doon gorloo sax dañoo takk seen digg ànd koog ñun gën noo jàmbaare sa tool yi leneen luñ fa santaane leen dañuy làmb seen poos ànd koog seen doole ñëw boole nu fa lii nag mboolem mboolem kàddu yi nga xam ne noo ngi koy wax nag noo ngi koy wax ci turu Serigne Modou Racine Ndiaye mii nga xam ne moo fi kilifa sëti Serigne Bandji yëpp mboolem sët yi moo ci mag moom lañuy wax ci turam moom moo waroon a wax jii moom bañ ko ji ba ko bàyyi ji jiitalee ci liggéey bi itam moonu wàññi ko jiitalaat mi ci liggéey bi kon boo ne noo ngi seereel sëñ bi jàmbaaru liggéey ñi ñi ñiin àndaloon liggéey bi yëpp di xamal ne ko itam nag sëriñ Modou Racine moom nga xam ne moo ne ci suñu kanam itam nag ànd naag nun ci mbooleem lu lum nu doon def loo waaye itam nag xatalu xatalunu ci dara daf noo yaatal ci lépp kon nag euh, mënunoo weesu euh, sant ko ak xamal la ko mu xamal ne daal yow mi nga xam ne yow la nekkal ci ci ci sunu kanam na nga xam ne ni mu nekk ci sunu kanam daal mooy ni nga bëggee ku ko nekk ci sunu kanam képp sëñ alhaaji rasid li mu wax dañ koy feddali waa kër sëriñ Touba yi xam nga jot amul waaye ñu ñëw yendu fi jëla la naa ngi ñëw waaye yendu fi laa ca waxtu ndékki ba nëgëni ñu nekk loolu ku la ko may ci waxtoom rawatina muy njabootu sëriñ Touba mënuñu leen a bañ a sant kon sant na ñëpp te gërëm ñëpp sëriñ daal na xam ne mboolem ñi nga xam ne ñoom lañ woon ñëpp wuy si nañ kenn ku nekk nag wet gam a taxawe taxawe na ci ku nekk wet gam war taxawe taxawe na ci kon nag loolu ak cant rek la fa lilahi alhamdu wa sukuru ñu maasee déglu sëriñ bi te nangu ñaan bu noppee asalaamaaleykum noo ngi boo sant ñëpp ñi fi teew ak ñi fi teewu ak képp koo xam ne ki yëngu nga ci bis bi rek loo ci yëngu rek yal na ko sëñ Tuubaa def soppi ak ngërëmam kon nag ñoo ngi leen di sant bu baax sant moom mënut weesu jaajëf kon nag jërë ngeen jëf yal nañ ko yàgg a eh, fekke yal nañ ko yàgg a fekke yàgg a liggéeyal sëñ kon waaye nekk rek na tàllal loxoom tey na te wax amiin te xam ne koo xam ne ci tàllal nga sa loxo nga wax amiin na ngay fasaale ca sa ca sa tàllal boobee lépp loo xam ne li sa ittey saayir la ak sa jëj baatin kon nag bisimilah. bisimilah fu waaye toll na tàllal loxoom te wax amin ci biir ñaan bi sëriñ bi nee na na ci ñëpp fasaale seen ittey saahir ak seen ittey baatin na ko ci ñëpp fasaale ñu nangu ñaan amin na ñépp maase tàllal nangu ñaan amin amin allahumma amin من ظنني غير قديم المصطفى فإنني أخدمها بما صفى أخدمها إلى دخول الجنة دار القرار والمنى والمنى